ñu ngi siyaare mboolem seen mbokki taalibe yëpp ku ci nekk ñu fekk la fa nga nekk jox la wàccuwaay wi yàlla dogal ci yow te ñu nangu ko mu neex nu lool di wax asalaam wa rahma wal baraka muy nuyoob lislaam di asalaamaaleykum wa rahmatullah di santaat bu baax ci daje bii nga xamante ne dajewaat nañ ko ci barab bii te saa su ne ñu koy waxee noonu bis bii nag moom daanaka day doon bis bu ala daaw me ndax saa su ne dañ koy faral di wax ne bis solo si bariwul waaye lay tax lay xew ca bis ba mooy waral solo si am njariñ lool. te mboolem seen képp koo gis muy xotti jëm ci lislaam di liggéey jëm ci yàlla sunu borom sa bunt mooy yonent bi sëriñ Tuubaa nag wax ci ay wax yu yéeme lu jiitu ñuy ñëw ci bis bi ndax bokk na ci li mu wax lil Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu xaraa wa inni Ahmad donn gi nga xamante ni da koy jël donn sunna Muhammad ba ràppoon ndax wa inni Ahmad mooy Ahmad loolu nag buñ ko xamee kon daa am taxawaay boo xamante ni da ko ciy taxaw moom sëriñ bi te ci biir taxawaay gi bokk na ci li mu wax jëf naa ngeen gis bis bi li mu ci jëf képp koo xamante ni murit nga ump la ndax bokk na ci li muy li muy doxee gàmm mooy ni nga xamante ni ni mu bindee kuréelu jës bu day taxaw kuréelu moay moay bu taxaw kuréelu mu xaddimaat taxaw barsan ñëw lépp di ay tagg yoo xamante ni da koy tagg jëm ci yonent bi waaw moom moom moom moom du nangu ku ko gën a bëgg xaddimu rasul boo ko déggee daa doon loo xamante ni daa da cee wéet bokk na ci li mu wax jëmm joo xamante ni la euh, tur wañ ko jox da ko da ko da ko daa dox ci mbubb mu ci nekk muy xaadim di rasulillahi xaadim ba mu ciy dox boobu daf koy wax xaaj naa at wi jël juróom benn weer yi taggee ko yàlla jël juróom benn weer yi taggee ko yonent bi waaye lu jiit loolu mu ne yàlla ci jëmi boppam moo ma tagteel yonent bi dala ni allahu ala waaye ci loolu da ciy dox di ci dox di ci dox ba yonent bi bu mel nii lim koy jox yëpp bu meloon ne kuy jeexal ci saayir dañ naan jeexal na ba ne ko kaay ma jàpp ci sa loxo nag jox la ci ki nga xamante ni moom bu la mayee du wàññeeku boo yokkee ci moom du yokku ci la ne yonent bi tegtal na ma yàlla sunu borom boobu jugee na ci xaddiim gi waaye mi ngi ci rasul ba mu jugee foofu ba mu nekkee ci loolu nag mooy exil bi nga xamante ni dox na ko mooy aji ki nga xamante ni yónni nañ ko nag muy dox yónnant woowu waaye ca ba mu weesoo foofu laaxi ca la ca la toll toll gam fa toll boo gisee lu ci mel ni màggal ba nattu yi di ñëw ngir mu war a dem mu ne bis bii bu yegg seetee na ngeen ma santale yàlla ci ginaar ba ci gëléem day wane ni moom bokkul ci nit ñi ndax lam ansu la wax du ma nit. lii wane ne bokkul ci nit ñi nag bokk na ci koo xamante dañ lay yóbbu ngir teg la ay nattu muy sant yàlla kooku boo nitee dëgg da naan kii moom li muy def est ce xam na ko wala fa mu jëm ndax xam na ko waaye xam ki muy tagg la waaye xam tamit fa mu jëm la ba tax na loolu yi mooy li nga xamante ne moom moo nu fi bàyyi. ñu ànd ko jëmm sëriñ bi muy sëriñ tubaa ndax moom du ko fiy jóg lam tan xu nii muxaddamaatul mawti waxat rafaxtu bi baqaayi sawti kafaaniyal baaxi ma maa tasarmada wa bi baqaa yeesur ahmada ndorteelu dee muy sukuraat du ma jege ba dee di ma laal ndax yàlla aji des ji moo ma fegal ak dee sarmadan la wax faw des gi may des mooy bégal rasulullah ne làqoo naa ak jaam waaye ëllëg nekku yàlla gi man la ñeel habatu kaw niya abdallahi xaadimahoo cirum naa wa kaw noo li yow ma asri wa diini kooki nag ku ànd ak moom wax dëgg yàlla mënoo def lu dul fonk bis bii di bisub yonent bi ndax moom daa fonkul dara lu dul alquran yàlla ak yonent bi ba tax na loolu la ñuy ànd ak moom ànd ko sëriñ bi ngir jëmmale ko bis bi waaye ñaan ci suñuy aajo ndax bis bi dafa doon bis bu yéeme boo xamante ne lu ci waaye ñaan mu nangu te dëggu mënees na ko ci amee waaw sant nañ ci bu baax a baax. waaw day xanaa euh, dañuy bàyyi sëñ Fallou mi mu wax ko. di santaat Serigne Touba bu baax a baax a baax a baax. di ñaanal suñ buntu sëriñ bi muy Cheikh Mouhamed Lo suñ bam subhanahu wa yàggal ko fi lool ba lépp lu am yéen liggéey ko sëriñ Tuubaa suñ bam kàttan la ko ma def ko nu kawe njottam te ñaan ak moom waa di leeral tuuti rek lu mënta ñàkk daaw ndigal moom daanaka moom mu matu ñu wax sax waaye daji ndigal ci li nga xam ne ci nii sëriñ bi topp la nekk muy sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci topp yoon sunna mooy dundal guddi gàmm bis bu màgg ci marché yi daan wax naan ne ñaari weer rek laa fonk muy weeru koor ak weeru gàmm te ginnaaw yàlla buñ bokkaate ci moom aju ci moom fas yéene liggéey Sëriñ Tuubaa dañ koy def si sunna Yonent bi sallallahu alayhi sax suñ bo dañoo toppal sunna Yonent bi ba tax Sëriñ Tuubaa wax ne rajaawul jannati bila taati bi sunnatil maa'i xururiyaati képp ku sàkkoo topp yàlla ci lu sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi xaar ay woor yoo xam ne ñëwagul kon dañ koy bisub sunna la bu ñu dund la rek di muy topp yonent bi sallallahu alayhi wa baax ci kàddu yi nag wasalaamaaleykum wa rahmatullahi ba ñu doonee ay jullit te daanaka téere yi wàcc bari lool yàlla segg ko ba ci ñeent yi nga xamante ne daanaka lu ñu mën a ràññeet la delluwaat mu ne xinda diina xinda laay lislaam diina ji ma gënal mooy diina lislaam ñun bis bii ñu am nga xamante ne màgg na loolu ay waay gaa yi nga la bu ci kenn nelaw ndax euh, lu lu la ndax yàlla dafa ne ñaan leen ma may leen waaye bis yi daa bokk ci yi nga xamante ni boo ci ñaanee mën naa nangu ci lu gaaw te nga mën cee rafet njort waaye bis yi bokk na ci li nga xamante ni tamit warees na cee baalonte ak ndax day bis boo xamante ni moom moom moom lépp lépp ci yéwén malaaka yi nga xamante ne malaaka yi yërmande lañu ñu ngi wër di wasaare waaye nag duñ koy wasaare kuy nelaw bis bi daa doon bis boo xamante ne nañ leen ci jàng xasida Sëriñ Tuubaa yi ndax yonent bi ci moom lañ koy jaare bis bi daa doon ci bis boo xamante ne nañ leen ciy tuub suñuy bàkkaar ndax ku ko dul def amul Sëriñ Saali waxoon na ni ku jombale sa bopp tuub des na la xoolaat ndax ku ko war a jombale sa bopp amul tuubal yàlla daa war ci ñun ñëpp te bis yu ni mel daa bokk ci li nga xamante ne mënees na cee rafet njort ba tax na maa ngi ciy woo euh, mbokku taalibe yi waaye tamit maa ngi ciy woo kullëre yi nga xamante ni ñoo kullëranteeg sëriñ bi ñu jéem a góorgóorlu ci bis bi. te képp koo xamante ni ñëw nga ay waaye na ko dundalee ci bâche ba loolu daal mooy soññe bi di teg foofu suñu loxo di wax asalaam wa rahma wal baraka muy nuyoo rek di asalaamualeykum wa rahmatullah